Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi asalaamaaleykum tey suñu colique politique. Euh, ñu ngi ko tuddee quelle urgence pour le Sénégal quelle urgence pour le Sénégal ñun ñëpp la intéressé gis nañu dëkk bi kenn ñaanu ko yàlla buñ kenn ñaanu ko yàlla buñ deful ndànk dina tàkk te jàmm si la lëcc xaj mooy suñu chronique bu tey quelle urgence pour le Sénégal urgence yi bari nañ fi ma ne balaa muy ñëw si chronique balaa ñuy ñëw si urgence yi fii si biir banlieue bi ñu ngi ñuy signalé que ni euh, xeex baa ngi tar diggante takkader yi ak élèves yi ak askan bi grenade yaa ngi jolli fépp ba fii ñuy wax euh, suñu bërëb bi si ginnaaw école douze lacrymogène lacrymogène yaa ngi jolli nit ñaa ngi commencé di nooy ak xet bu bon élèves yaa ngi commencé di génn un peu partout à Pikine dans la banlieue banlieue bi jóg na ngi wane seen bopp euh, te dafa nekk loo xam ne bu deful ndànk rek mën na indi ay gàllankoor si réew mi euh, di wax aussi askanu suñu gaal réew mi ñoo ko bokk nañu moytu euh, fitna yi wax naa ko plusieurs fois si yenn émission yi fitna dafay gàllankoor réew fitna kenn ñaan ko yàlla ñu ne bu doon suñu sago tey yàlla def si ndox mu sedd kilifa diine yi commencé ni euh, commencé euh, ñu ngi commencé di wax am na ñu commencé di wax mais dañuy ñaan yàlla mu gën di yaatu ñoom la yàlla ñoom la fi yàlla bàyyi ay nit yàlla lañu war nañu jël seeni euh, kaddu jëmale ko si askan bi xale yi rek ak seeni waajur ñoo nar a am ay problème ay tout ay xale yam 13 ans 14 ans ñoo topp euh, yore seeni xeer di ko jolli si kaw takk der yi loolu askanu Sénégal parents yi war nañu waxal seeni doom balaa muy jéggi dayoo balaa mu ay jiixi jaaxa doo fekk Ousmane Sonko rek Sénégal yépp la sur tous les plans maa ngi waat parents yi di woowaat le gouvernement di waat les autorités nga xam ñoom ñooy jiite réew mi notamment le président Sall xam moom la yàlla dénk réew mi mu wax ak askanam jot na euh, bu mu topp euh, yenn influence yi moom mooy jiite moom moom moom la fi yàlla teg wax ak askanu suñu gaal te buñ defee buñ ko defee rek incha allah jàmm dina dellu si fii si biir réew mi li ñu gis nii li ñu gis nii ay fit rek la indi fépp nit ñaa ngi xeex. nit ñaa ngi manifesté wu ba si diwaanu Sénégal yi yépp dañ ko war a tax ñu toog waxtaan diisoo loolu mooy réew euh, di saluer aussi le courage de Mame Mactar Guèye di président de l'ONG Jamra dafa tëral benn kuréel boo xam ni nank kilifa diine yi am na ay chrétien ñu mën a waxtaan ak euh, ñi nga xam ni euh, jege nañu Ousmane Sonko jege nañu kujje politique yi loolu mooy réew Sénégal réewum démocratie la réewum droit la lañ ko war a di euh, topp bu ñu ko defalee ah gaal gi dina suuf ñu ñëppay suufloo. Euh, jëmale ko aussi suñu chronique tey bi euh, c'est sur la situation politique ma ni am na ay kuréel yoo xam ni démb dañu samp benn collectif ëmb kujje politique la société civile ñëpp si biir. dañu fas yéene dox dox bu ñaxtu àjjuma bi juróomi fan si mois de mars atum 2021 ma ne euh, marche boobu ñuy organisé dañu wane dañu bëgg a seen naqar jëmale ko si nguur gi wane seen naqar jëmale ko sur l'affaire Ousmane Sonko jëmale ko ñu buntu xatale askan bi ni ñuy jalgatee ak a wareef doomu aadama yi réew mi dara doxatul sur tous les plans économie sociale éducation santé ma ni askanu suñu gaal ñi ngi jooy fépp loolu am na yeneen waxtaan yoo xam ni war nañ ko mën a euh, tëral waxtaan ak les principaux concernés diwaat les partis politiques surtout xale yi topp seen ginnaaw ñu bañ di toj alalu jàmbur yi euh, loolu dafay indi ay jafe-jafe am na ay promoteurs yoo xam ni ñoom seen i station ñu ngi koy ñaw loolu du dafa indi ay jafe-jafe am na doomu Sénégal yi si liggéey daan seen doole buñ tojee buñ taalee station yi taal magasin jàmbur yi loolu du dëgg du yoon dañuy war a di moytu fitna baaxul askanu suñu gaal di wowat Sénégalais yi surtout euh, kilifa diine yi les religieux euh, parents yi ma bamtuwaat ko les cadres les intellectuels mooy ñëpp ñu toog waxtaan. loolu mooy surgal ma ne di wax aussi le président Sall waxtaan ak askanam di waxtaan rek euh, euh, Sénégalais yi loolu bu ñu ko defee Sénégal du am benn gàllankoor di waat suñu mbokku jigéen ñi les femmes leadership que lañ nekk au vingt et unième siècle di rafetlu libération jigéenu Pastef yooyu jot na ñu bàyyi leen te bàyyi leen leen dañ doon xiifal gis nga ni jëgu nañu ba ñu bàyyi leen Euh, diwaat la justice sénégalaise xam ah, moom la fi moom ñoom la fi yàlla teg que ça soit les magistrats les avocats ñuy leeral askan bi di plaider dans très bonnes conditions loolu mooy réew te loolu mooy bonne gouvernance ma ne askanu suñu gaaw collectivité bi nag loolu lañ leen indi woon te nañu gën a góorgóorlu bu réew mi yàqoo ñun ñëpp ñu koy yëg bu réew mi suruxoo suruxee ñun ñëpp ñu ko yëg ma euh, boroom xam-xam yi Senghor da daan wax ni le Sénégal est un pays de dialogue Sénégal dëkku diine la gis ngeen suñu mbokki fi gis nañu fi jaaroon démb ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ay nit ci jàmm lañu woon ñoom Bou Kounta El Hadj Malick Sy ñoom Baye euh, ñoom seeni jamono dafa nekkoon jamono yu muccaay jamono yu neex dañ daan dal xarfu seen i bi dañ daan toog di waxtaan di diisoo loolu loolu mooy réew te loolu mooy religieux di waat surtout les sénégalais bi nekk bitim